toggee fa toggee fa toggee fa laax toggee fa lépp lu war ci génte génne ko fa yóbbu ci baas bi kii sama dereta sama mbokk sama cousin la bu naawee damay naaw su ma ànd moom moom la war a àndal su ànd ak man man la war a àndal ndax ñoo bokki maam baayam con sekk balaago sama kër maam la jóge ma koddu balaago bokkul ngéwél balaago bokkul ngéwél bokkul marine balaago ca ñeeñoo yàlla bokk ci sama waa kër maam sama maam maam balaago kese moo bokk ak maam ibra kese benn baay maam Ibra Kase mooy bàyyi Alioune Kase mii way maam ma Kodou Kase jur Ismaïla Kase mi ma jur maam Ballaago Kase seen baay moom lañ tuddee jëmmi baay ji toog waaw man ku ma la kudu kii du ma ko yàq ku kii ànd la kudu man du ko yàq dama koo war a topp di ko topp nax moom laa war a topp dama ne li may tëjee kàddu yi oh. toos la toos na mën naa la yàlla nga am jàmm mbokk ma tëj ci fi ma doon wax sànq ne mayu ma jën daf maa jàngal lu ñuy nappee dafa rekk di ñett jëmm dénk ma ñaa xale loo sa waa gi ñett jëmm la ma dénk moom xam na ne mi ngi sama kanam mi ngi sama ginnaaw mi ngi sama ndeyjoor mi ngi sama càmmoñ moom xam na loolu te nag doy na ma ci sëkk na barke Serigne Saliou Mbacke bëgg ma jariñu rek tax mu may booleeg nit waaye moom xam na ne ne ci wetam rek mën na maa jariñ àddina ak àllaaxira moom xam na ko moo la gën a xam. ngir bëgg ma bañ a doyal ngir bëgg ma am bëgg a njox moo waral mu yëkk ay nitam di ma dénk taa jékki-jékki woo ma ma ñëw mun ma jëloon numéro aw Baba Thiam génne téléphone jox ma ma jël mun ma ko ne ko maa ko dégg def ko muy sa ndey dinaa ko woo li ma ko wax ko dégg aw Baba Thiam bàyyi ngeen dara mbokk yi su waal di ñëw mu taxaw yëkk samay loxo di ko wax lu baax première phrase bi may njëkk wax muy wàllu penn mag mu ci belalul muut mayaa si may si bigé may si bigé ma ak i naaran ka des loob njark dem ka des lambaay njii noon njii njin faramaare njin borom bete jot dem déggan baay dem bi sa déggan baay daaga daaga déggan baay ku ne farak déggan baat boobu laa baat boobu nga xam ne une le cinq un million benn bi laa wax de chaque le cinq aw baaw caam dafa may ndax benn baat boobu may wax waali borom ndox bi moom mu def saay ak kii waaw na ko woo na ko Mamadou mu ne ko naam mu ne ko Omaro sama yàlla maa la ci man la bokk sama njaboot la te dama bëgg moom xaalis communicateur la day liggéey day wër di wax di noppalu te li muy wax barkeel na nit ñi bëgg nañ ko danañ koy déglu damaa bëgg nga def ko ambassadeur fay ko xaalis bu bari moo xal la mu ma saay na ko suba na xëy ñëw bureau ma xëy ñëw bureau ñu defaral ma chèque bu 50 millions tegal ma ci Mercedes moom laay doon est-ce que dégg nga ma mm. kii ko def e Étienne borom Bordeaux nit ku yàlla baax la xam nga kuy bàyyam Joseph Ndong mi nekkoon ministre des sports jamonoy Abdoulaye Wade te génn àdduna ñu koy jooy ba tey noppagum président moo Étienne ne ko Omaro sama élément la ci Bordeaux bi ci barke Demba Ndiaye dóor de Paris ba Mollet de France waaye yéen bàyyi bàyyi bàyyi yëg ngeen ne en exclusivité dañ maa dàqoon France <laughs> yëg ngeen ko. non waxuma pour ngeen reede dama ne man dama am doom bu góor mu juddoo France ma am man am nationalité français man dama ci am droit parce que dama jur doom mu juddoo France di yeewoo Lyon France dàq ma France man dañ maa génn woon France la ma def nag man la concerné parce que c'est man la ak sama njaboot ga dëkk France loolu yoonu journaliste nekku ceeg yoonu presse ak yoonu papa ak yaay ak yoonu xarit jàmm man la concerné ndax maa ko def ñu génnee ma France France ne ma boo fi tegatee sa tànk ci kaso bi ngay dee devant le Portugal. ñuy doom de Paris ma koy nëbbu waale ma ko nëbb ndax sama gàcceel ab dégloo mbokk yi ab dégloo. dama ko doon nëbb ndax sama gàcceel ma koy nëbbu waaye tey ma diggal leen benn baat yéen presse billaahi wallaahi wataalaahi kii toog moo information Macky Sall mi ngi dénk réew mi Macky Sall de la nation. le gardien de la constitution. kii ku gën a xam li xew ci réew mi barki Serigne Bamba li mu yor ci agent secret li mu yor ci agent secret noonu ma ne li mu yor ci agent secret nañu Kolda Tamba Ziguinchor Matam Podor ak Linguère balaa ñuy déposé laa wax de waxuma la déposé ba pare de balaa ñuy déposé xam nga sax bu fekkoon duñ déposé ba pare tubaab bi wax ko ko danaan dañoo déposé ba pare mu doog ko keroog ba ma laajee passeport ma jox ko passeport juróom-ñaari fan lañ ki teg moom ba ma ñëw ne ma loo def ma ne ko loo def mooy waxi la mu ma lan nga def laa wax bu ma fontu loo def ma ne ko ah man de comprendre ma li tax nga naan ma loo def mu ma sa passeport bi lu ci ne ma ne ko ah dem naa Turquie taay passé mu wax ma waxuma loolu kañ la nga visa France rek ma xam ne waa ji xam na li xew ma ne ko maa ko def de ma ne ko maa ko def ko nag wax dëgg yàlla xam naa ne sax ma dem. yow ko xam naa ne dem de. jox naa la sama passeport waaye xam naa du ma dem ndax man France dootu ma woy visa ci àdduna man xam naa loolu. barke Cheikh Fall dugal France. yaa man yaa ëpp doole. li tax ma koy wax ko. dama ne yaa man yaa ëpp doole. barke Serigne Saliou Mbacke ma ko yaa man yaa ëpp doole. ma ne ko tubaab bi boo ko joxee sama passeport da koy xotti. waale na ma man nii maa lay dugal France. keroog moo tëddee dina la ko ne woo ma. ma ne nii gis appel bi mu ne ma mel nañ la visa suba ngay dem bi ma jugee baara mbay bi ma laal bi ma jógee ci sama néeg baara mbay bi ma laal ba tey jii may wax ak yow Papa Ndiaye Thioub Ousmane euh, Pape Moussa Sonko boo leen boole woon mënuñu ko fecc ak Amady Badiane mënuñu ko ndax nag dafa métti ci xool am doom mu ne France te mënu ko gis eh, te toog naa ñeenti at mënu maa gis sama doom mu naqari sama xol bi lool ma jooy ko jooyu biir jooy ko jooyu biti naa si ba làgg mii xam na la may wax wéet naag moom kott ku tëdd ci kawam jooy na ko naa si dafa sama doom bi te mënuma koo gis te li tax mënuma koo gis maa ko liggéey kee taxaat ma gis sama doom kon moom bu doonee góor dama war a topp kii ba xëy dee waale aw ma sa fay maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm maa ngi lay ñaanal dama laa bëgg dimbali nag ci presse bi ndax dama gis ni at bu jot ah. da ngay tànn ñenn ci ñoom di leen may ay xar dama xam ne bu doon sa yéene nga may ñëpp. waaw ma bëgg laa jàppale ci ñoom. waaw góor. ren nag xat na. waaw ndax tabaski gannaaw suba la. waaw waaye gannaaw tabaski ren gii. ndax sama fondation bi ñetti at a ngi nii at bu jot ma tas ay xar ci prison yeeg hôpitaux yeeg banlieue bi. bi ma ko njëkk def 20 xar laa def 2021. 2022 ma def 30 xar. ren maa nga ci 67 xar. te noppeegu ma Abdou Aziz ko séddale du ma bàyyi ma fenn mi ngi nii taxaw. presse sénégalaise dama ne toute la presse sénégalaise à partir de at bii jëm at yi ci sunu kanam. ba keroog may génn àdduna di sàngu suuf ak bu jot danaa ma may cinquante xar teg ko ci loxo mi dun mii ngir jëm kii toog nag ma dégg at bu jot at bu jot laa wax dama ne alaaji Medoune maa ngi teg samay kàddu alaaji Medoune yow laa koy jox ngeen baal ma ma tëj. waaw damay tëj alaaji Bijou. baax na baax na toogal toogal toogal toogal mbokk yi dama ne damay tëj. te kàddu gi may tëjee mooy dama ne presse bi la presse sénégalaise bi fi daje. damaa wéet ak Waly mu waxtaan ak man ci yéen gi mu am ci yéen. su ngeen bokk damaa wéet ak moom mu wax ma yéen gi mu am ci yéen. am ñenn ci yéen ñu ma booleel am nu mu meloo ma xam ne kii li mu yéen ñi ëppoon na lii ma porte garage dama ne ñetti at ci ren xar yi may may ci prison yeeg hôpitaux yeeg daaray alxuraan yi mi du mieux ànd improt moo koy filmé dama ko ne bis ni ren wéy na waaye dama ne à partir de déwén ba keroog may sàngoo suuf at bu jot bu laa koy defal ubbil ko compte di ko dajale incha allah à partir de déwén ak bu jot Wally Seck may na presse sénégalais cinquante xar jox na digal ambassadeur am Omaro mu Cheikh Béthio porte-parole am ngir mu jox leen ko te danaa leen ko jox te bu ma leen jox nii ngeen ma jëbbal leen xarit asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Omar jërëjëf wel te ki ko jëf moo maa ngi ñaan jàmm di ñaan bés bi ñu jëm muy tabaski yàlla nañ ko fekkee buñ ko fekkee yàlla nañ ko tal ñu nekk ci kaso yàlla nañ yàlla génne delloo seen njaboot ñi feebar mu fëgg seeni i bopp ñi faatu nekk yomal xiyaam yàlla na leen jéggal yërëm leen te ñun ñu yéexee ñu ah may ñu gudd fan a wér ñu dëkkee di leen ñaanal euh, ñu ngi baluwaat àq bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. encore une fois jottali président li muy wax ndax ñëpp dégg. waaw ñu ngi baalu àq bu baax a baax. président nee na ñu ngi baalu àq bu baax a baax. ah ñu déglu ah micro yi jeex na ñu ngi baluwaat àq bu baaxa baax a baax encore une fois seen togaay bi yàgg na ah ñi fi nekk ñëpp du ma lim kenn ku lim juum maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp Seydina Omar. président jërëjëf. jërëjëf yaa ko moom. jërëjëf. jërëjëf ba mu ñetti yoon. la presse bi nga xamante ni yow ñoo ngeen fii ànd ak Seydina Omar jërë ngeen jëf jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf président merci beaucoup jërëjëf président